waa Sénégal euh, yi nga xam ne euh, seen gaal dañ doon jëloon gaal di dem Espagne xaw ma dañ doon dem euh, Espagne wala wala Italie seen gaal gi suuf ñu di leen jaale seeni i mbokk en ñi fi nekk ñëpp mën naa wax ci seen tur ñu di leen jaale bu baax seen i mbokk di leen ñaanal yàlla mu xare leen àjjana mais aussi di wax ni naqar la pour ñun waa Sénégal chaque jour chaque semaine chaque mois ñu gis sunuy doom yu génn réew mi dugg ci ay gaal di ñàkk seen bakkan parce que amuñu ci réew mi li nga xam ne neex na leen amuñu ci réew mi ay opportunité pour mën fi toog pour mën a liggéey ba mu jaral leen ñuy sacrifier seen dund pour dem feneen muy naqar ci waa réew mi di naqar ci waajur yi di naqar ci ñun ñi nga xam ne dañu bëgg réew mi am ay opportunité pour sunu jeunesse am ay opportunité pour waa réew mi ñu toog fi tabax sunu réew dafa réew mu mucc ay li muy wone mooy échec échec total ci politique de jeunesse échec total ci politique d'emploi échec total ci politique de gouvernance donc loolu may tàmm di wax xale yi bu leen demati fenn parce que ñi tax réew mi demee nii léegi ñu abal ñu soreetul ci ay fan la la toll xale yi ñu toog ci réew mi ñu defar réew mi ñu tabax réew parce que dañu leen soxla pour construire notre pays loolu laa bëggoon commencer li ci des mooy je pense ñi wax yépp wax nañu ko li fi des tey mooy ñu dellu tënku ci loi ñu dellu tënk ci constitution mooy décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jëloon te madame le premier ministre wax ko léegi mooy élection bi président Macky Sall da ko war a organiser avant la fin de son mandat leneen lu mu def santuñu ko ko wax naa leen ko keroog donc ma jàpp ne ñun ci loolu rek la ñuy continuer di ci tënku di woote à une mobilisation nit ñi waruñu bàyyi waruñu bàyyi. ñu ñuy proposer yeneen dat waruñu bàyyi waruñu fléchir mobilisation bi nga xam ne ci la ñu nekk depuis le début taxawaay rek moo fi des wax amatul na waa Sénégal génn taxaw comme ñëpp niñ ko defee dans le passé donc di wax ni loolu moo fi des ba élection bi ñu organiser ko avant la fin du mandat président amul lu muy daw amul lu muy tiit de transmettre le pouvoir comme ni ñu ko ko transmettre mu def passation de service en bonne et due forme loolu rek la ñu bëgg bëgguñu leneen donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax la mobilisation continue du ñu bàyyi tant li nga xam ne moom la ñu bëgg euh, amul may sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum. merci. Assalamualaikum warahmatullah. Donc après m'être incliné sur la mémoire de nos disparus de Saint-Louis, euh, je voudrais déjà me réjouir que toutes les composantes qui se battent pour la démocratie au Sénégal, ce soit enfin retrouver au nom du Sénégal. Au-delà de ça, je voudrais rappeler encore une fois que nous sommes à un moment charnière de la vie de notre pays, qui demande la mobilisation et la vigilance de tous. Et c'est pourquoi ce front appelle tous les Sénégalais à rester mobilisés au nom de la démocratie pour faire face à cette forfaiture, pour faire face à cette balafre qui reste constante et surtout pour arrêter ce dilatoire qu'il y a et qu'on note de façon constante de la part du président de la République et de ses soutiens. Ce qu'il faut noter, c'est que nous avons aujourd'hui une instance qui nous dirige, qui est le juge des élections, le Conseil constitutionnel, qui a pris des décisions, qui dans le jargon maintenant nous amène malheureusement à des détails, c'est-à-dire quand on est là à discuter sur des sémantiques meilleurs délais, invitations, alors que tout le monde sait que quand on s'adresse aussi à un président de la République, à un jargon pour ça, parler au président de la République. Mais la décision était ferme et irrévocable et surtout sans appel. Et qu'au nom de ça, le président de la République devait être le premier gardien de la Constitution. Il devait protéger la Constitution de notre pays et veiller tout de suite à exécuter cette Donc les conclusions vont nous ramener encore une fois à saisir le Conseil constitutionnel. Donc tout ce détour-là pour nous divertir. Mais je voudrais dire aux syndicats de ses collègues chefs de l'État de la CDAO que cette invite qu'ils ont faite dernièrement les rend déjà suspects et que tout soutien qu'ils donneront aujourd'hui dans un processus qui est autre que celui qui a été édicté par le Conseil constitutionnel aliénera définitivement les Sénégalais de ces Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les Maliens, nous ne sommes pas meilleurs que les Nigériens. Donc s'ils acceptent d'être du côté de personnes qui ne respectent pas la démocratie et les libertés, nous nous aliénerons ces pays-là, ces organes-là. Et je voudrais aussi qu'on rappelle qu'au-delà même de la symbolique, de la, du respect que nous devons au Conseil constitutionnel et de ses décisions, nous devons prier, je dis bien, nous devons prier pour la sécurité des membres du Conseil constitutionnel. De la même manière, d'ailleurs, il faut prier pour la vie et la sécurité des candidats, parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on est dans ce pays-là. Mais veillons à ce que les soldats de la démocratie soient protégés par les Sénégalais. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir du 2 avril, que tous ceux qui pensent qu'ils peuvent signer avec l'État du Sénégal dans cette configuration comprennent qu'eux-mêmes se mettent dans un cadre d'insécurité juridique. Parce que les pouvoirs de n'importe quelle personne, sauf celle qui sera élue par le peuple sénégalais, ces pouvoirs-là sont réduits à leur plus simple e-, expression. Et que la personne qui prendra à ce moment-là la décision de contracter avec l'État du Sénégal le fera à ses risques et périls. Et nous l'assumerons devant l'histoire. De la même manière que nous assumerons qu'aucune amnistie ne de comptes. qu'aucune amnistie ne peut se faire sans qu'on ne sache dans quelles conditions les Sénégalais ont été brimés, tués et que leurs droits les plus élémentaires n'aient pas pu être assurés par ceux qui devaient le faire. Donc nous nous inscrivons définitivement contre ce projet en cours et nous mobiliserons partout où besoin se fera pour que la démocratie sénégalaise reste debout. mbokk yi man lii laa amoon pour wax di sant ñëpp di gërëm nag di sant kilifa yi fi ndax ñoom ñoo waral tey Sénégal daje ndax lii mooy Sénégal ñi jógoon mooy F24 mooy f cinq mooy FDD mooy aar sunu élection mooy f cinq ñëpp dajaloo nañ dañuy bàyyi sunu ay yitte bàyyi suñuy jiital intérêt wu Sénégal ñun ñëpp ñu fàtte suñu bopp pour réew mi loolu moo gën a am solo donc li may ñaan rek sénégalais yi mooy ñu gunge ñu ndax li ñuy xeex ñoom ñoo ko moom seen àq la ak seen yelleef donc ñu dimbali leen que saa yu kenn ci ñoom wootee xam ne ni ñun ñëpp a woote donc bu ñuy tàmbalee sax mooy manifestation FDD moom la ñuy tàmbalee moom la ñuy wane ni Sénégal yëpp mobilisé wu na pour loolu di wax tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekk di xalaat ni le 2 avril Macky dina fi jógee jógewu fi tànk taxawuñu pour mu jóge ndax ki ñuy wax defal nga xaar fukki fan ak ñaar pour woote jalo ngay xaar lundi pour ñu ñu jébbal la rapport ngay xaaraat après pour joxaat ko constitutionnel conseil mooy amoo benn yéene pour def élection yi le avant le 2 avril ni la ko conseil constitutionnel santé donc may ñaan nag sénégalais yi sàmm waa conseil constitutionnel ñun dinañ jéem a sàmm suñu ak ak suñu ak sunu sécurité waaye ngalawaay ñaanal leen waa conseil constitutionnel Sénégal sàmm leen ci jàmm ak salaam salaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamualeykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, journaliste yeeg ak kilifa yi fi teew yu gaañu ci géej bi ci gaal gi fële ci Saint-Louis ah muy lu metti fii ci Sénégal euh, ñu ngi koy jooy ci ñu ngi koy xeex ne xale yi ñu dugg ci gaal gi di dem ils sont ay jàmbaar lañ ñu dem sax Nicaragua sax ay jàmbaar lañ ñu ngi fees New York avec beaucoup de problèmes dañoo war a toog fii Sénégal xeex ak ñun ñu changer régime xeex ak ñun ñu génnee fi présidentialisme l'hyper présidentialisme dama ne président Sénégal dañu wàññi dañu war a wàññi ses pouvoirs c'est parce que Macky a trop de pouvoir qu'il fait ce qu'il veut c'est inacceptable et c'est insupportable ñu góorgóorlu nag andi fi ay usine xale yi liggéey maa ngi gërëm waa FC 25 F24 ak ah, à suñu élection waa FDD bu ñu demee ba gis ni effectivement xeex bi fu mu toll léegi foog ñu boole suñuy doole dajaloo teg front de résistance mu di ma fàttali nag M23 M23 ñi la meloon politique yeeg wala politiciens yi ñooñu ñëpp ñoo dajale woon ak société civile bi ñu créé M23 man ne xalaatuma woon ne à l'époque 12 ans après on est au même pied au même point daanaka parce que ñu ngi xeex pour m Macky Sall bañ a